xultu wa man nasa bisil abiyaati kookoy magi maam Cerno Ibra Faati xultu wa man nasa bisil abiyaati kookoy magi maam Cerno Ibra Faati xultu wa man nasa bisil abiyaati kookoy magi maam Cerno Ibra Faati ki wax yi lay béy du koy waxantu mooy xaadimu rasul magum seexanta te mooy magum sëriñ Mbasamba Mbàkke te mooy sëriñ bu mag bi fii fi te mooy que Cheikh Ibra waroon ba gis ko boole ruwam ga ak jëmmam jébbal ko te mooy sëriñ bi julli woon ci géej gi déyeg boroomam delluwaat ci gaal gi keroog la gànnaar xam ne njëkk a fecc taxu la mu jëb géew ku gëm du xàcc keroog la gànnaar xam ne mu jafecc taxu la mu jëb géew ku gëm du xàcc kuy rëb bu day xii fa kamar diraamu su fetalee tan yu duufi yam taamu bamba fetal rab wa cerno fees ko dogte ko togg ko ni ñëw leen reer ko bamba fetal rab wa cerno fees ko dogte ko togg ko ni ñëw leen reer ko mosali leen te ne lii aw ban la mbana galaa laguñ ko junni ñay la xar baaxi bamba xajul ci téere laaj leen ko géej gi laaj ko jéeri salaatu rabbina ala muxtaari